Merry Beye Diouf ak Toch pare nañu pour wax ñi li xew biir internet Toch gë gëmal. Euh, Alaaji Pape. gëmmal gëmmal gëmmal. soxla naa lem bi de lii moins de 18 ans daa am lu mu bëgg a wax mairie bi. gëmmal gëmmal soxla naa lem bi laa soxla lem bi. de de depuis sànq maa ngi wax ak eh, moom dama lay boole sa papa de. lem bi depuis sànq maa ngi wax ak moom. dama am benn élève buy def BFM. te xam ne lem dafa baax pour kiis. <laughs> mais xale bi lu muy élève eh, bi lu muy dee lem. sama dama am sama benn xarit bu jigéen bu war a def BFM te lem bi daa baax ci kiis. du xale. nee naa la nga réglé réglé réglé. Euh, mairie. naam tos gëmmal. gëmmal. gëmmal. <laughs> ah fatal say nopp. <laughs> gëmmal te nga fatal say nopp mag yi ñooy wax. <laughs> eh tos. tos tos. waaw. Tamiya nee na. Hmm. nga fatt say nopp. lii lan la ci nekk ba ma war a fatt samay nopp. Miya Miya nee na fattal ma foofu. fattal man la ñuy waxal. léegi Merry Beye yow laay waxal Diouf. waaw waaw yëg nga ni paquet bii beccoo ngi ci. waaw waaw. awa yow wàccal bi nañ ma ko wàccal si suuf. awaati caprice minuit caprice minuit. du xam nga du xam nga caprice caprice de minuit. tos nañ ko jox mu raxas ndab yi rek xale kër la moom mën na raxas ndab. léegi tos ubbi seen na fatar ñil foofu. lii lii pour raxas ndab la dégg voilà lii mën nañ la ko jox boo demee seen kër nga raxas nga raxas nga raxas ndab mais pour problème mu lem bi xoola génn ci sa xel dañu am benn xarit bu jigéen bu war a def defee rek pour tiis la pour tiis dafay neexal xel lem maa ngi mooy wax <laughs> bon xam lu may def dama leen di bàyyi ngeen woo ma li xew biir internet mhm. juste après mooy ñëw tàggoo après bàyyi leen ak équipe bu euh, Tata Mia pour euh, Wareef ce sera pour tout à l'heure bonjour et bienvenue ci seen émission lu xew ci biir internet bi xam ngeen ko à partir de mercredi dañuy daal di euh, dalal ki nga xamante ne moom laa woowee désormais caatu kër gi. moo ci gën a réew. moo ci gën a yabaate moo ci gën a mën a ruube waaye ñun noonu lañ ko bëggee. man nag gannaaw bu ma leen nuyoo ba pare dama koy dalal nuyoo ba tos. waaw asalaamaaleykum euh, Sénégal di leen wax di caatu kër gi mu ngi leen di nuyu di leen euh, tatagal di leen wax ngeen dal jàmm si seen émission li xew si biir internet bi tous les mercredis ak jeudi xam ngeen ni duo bi ngeen am duo bu ëpp Poustouflant bi mairie Bay eh, Tos eh, di leen wax nag eh, fu mu la fekk rek ñu nekk ci lalu hôpital yi yàlla na leen yàlla yëkkati ñu nekk ci prison yi na leen yàlla génne fu waaye nekk di ñu seetaan di ñu bége mhm. ngeen dal jàmm ñoo ko leen li xew ci internet bi diggante démb ak tey waaw keroog dama la si remercier waale parce que keroog maa ngi am benn message kenn ku mhm. feebar ndeysaan ñu paas ma ko mu ne saa yu ñuy seetaan mercredi jeudi day ree ba oui parce que damay faj damay yëkkati. waaw oh, non dafa ne maa ngi yow de duo bi la wax. dinañ ko recevoir. wala yow sa bopp rek. non non non non c'est le duo. non <laughs> <laughs> mais balaa loolu. Mhm. tos tàng na. barki mais tàngaay bi fi mu toll nii. noonu nañ xool son bi son bi ba pare. non kii. parce li ma war commenter man ci son bi laa koy commenter. ah <laughs> fu tegal ñu son bi. yaa may xaar mu jeexa dili damay posté lépp sama vie maa tey woon may noon dañuy daw ñi ma bëgg dañuy rey ñoom xamuñ yoon bi mënuñ dëpp nu mu demee dañuy rey sama kaaro yaram dafay maas maas maas li gën a wóor mooy sori et son bi dafa neex lu tax euh, dafa neex dafa a yëngoo. Ah? Euh, pour une première fois euh, tàngaayu reen bi man xamoon naa ni kenn dina ko way. Hmm? mais Youssou bi way na tàngaay way na climat way na climat seddaay bi tàngaay bi. mais tàngaayu ren bi dafa dafa daf ñuy mbugal. Ah. tàngaayu ren dafa ñëw pour mbugal moo tax kii may nee tàngaay bi dafa mel ni dañuy suus. <laughs> di ma ne ko boo bëggee suus wala nga bëgg fat fatt wala nga bëgg a bu ko jiñ tàngaay parce que ñun ñëpp a tàng te kenn suusu fi <laughs> fekkee da nga bëgg a jàllale say message bi dégg <laughs> tàngaay beeg seddaay déedéet kii. dafa gis ne fait actualité la. Hmm. mu profité si def si benn son et le son est dansant mais dafa tàng wax ay prétexte lay wut pour mu wut nu mu suusee ak nuy méttee. <laughs> am na benn booy bu ko defoon ci seddaay bi naan ah seddaay bii. Ah. doom fi dina fi waa. Eh, dina fi kii hmm. ba jur fi doomu galaas rek. teg teg fa ndax doomu galaas rek <laughs> xam ne du seddaay bi. waaye yow tàngaay bi suusoowul kenn. Euh, tàngaay bi boobu ba léegi ñu ngi ciy daal di kaas di si wax gis ngeen ne temps yee passé dafa amoon benn vidéo benn booy bi upp na naan tàng tàng na ba nit ñi def ko challenge. Eh. donc kii nag euh, réseau euh, euh, vidéo bi moom mooy daal di daw. boobu ba léegi. Mhm. moom daal di si def son. mais nag am na tamit keneen koo xamante ne ñu ngi koy challenge mooy tata Pendo. Pendo la Pendo gisee waaw moom nee na. moom ci immature nee na du tàngaay bi tàngaay bi nee na les xolu nit ñi la nee na nit ñi nga xam seen xol yi day tàng tout le temps di mer mooy répercuté ci euh, climat bi climat bi léegi looloo tax bi tàng <laughs> léegi nag looloo tax il faut ñu tegalee les l'escale mi ngeen daal di ko xool waat lu gàtt la rek ay ca hmm. nañu tiit tàngaay bii de gomay la du été lan la moom c'est les cœurs qui brûlent ñun nañu tiit mi ngi noonu ne c'est les cœurs qui brûlent. ki <laughs> ne c'est les cœurs qui mooy comme ni ñu kon na kon na ku ci nekk jéem a seral sa xol. waaw jéem koo oyofal. Mhm. parce que yéen ñi seen xol di tàng yéen ñiy mer. Mhm. yéen ñi kii jàpp leen yéen a ñuy tàngaaleel ñun ñi nga xam. yéen a yokk tàngaay ñu ngi à na sedd nañ neexal xol yi nañ tëmbal ci xol yi glace. s'il vous plaît de bu neex. un peu de zirik dans les xol. waaw mais euh, man nag dama la doon xaar gis sa tey bisub mercredi bi dama ko doon xaar avec impatience. Mhm. parce que bac bi. bac bi oh. délibération yi délibération yi. te xam nga yow yaay xale ruube yëngul yëngal yi. waaw balaa oh. balaa boobu balaa nga commencé sa ruube man dama la bëgg a wax rek yow euh, sa bac. ñaataat la am quoi parce que. sama bag man dañ koy laajte si réseau yi. Ah. léegi am benn internaute. Mhm. mu ne nañ ko posé question ñu posé waale la ko yow. man sama bac. waaw euh, ku bokk ak yow classe nag moo ma posé question pour du yomb. mais parce que son nom commence par T. man sama bac Thierno Diop. Eh. <laughs> ndeysaan moom ma doon wanal. ko ak a baax man nag sama bac dafa def jugement. dafa def jugement. at réelam doo ko xam. Ah. dafa dafa dafa def jugement. Ah mais maa ngi nuyu bu baax ci ñi ma doon tricher ak ñëpp. <laughs> Thierno Diop ku baax la. Thierno moo ma doon wanal lépp gi nga nit da ngay reconnaissant. moo la woon ci bac bi wala classe ci moom laa doon yëndoo. classe attention rétroaction classe maa ngi doon yëndu. mais miri xam ban a fier sama xam nga suñu école ba mu daj man maa fa dàqoon enseignement. waaw mooy euh, gymnastique au sol waaw dëgg la jour bi Thierno Diop ñëwee ci man ne ma damaa bëgg nga ñu dem seen kër nga jàngal ma enseignement ba ñu war a dem ma lal ko mer gàddu bi. Oh. xam ni tey jii c'est le du donner et de oh, recevoir chaque jour Thierno moom mooy wan man roulaat arrière jambe écarté yooyu dama kaa mën ma yóbbu ko kër nga naan ko Thierno defal nii <laughs> nii la ak nii la ak nii ba pare kontaan naan ko Thierno jour ji. Thierno Massa Thierno donc en tout cas mi ngi noonu followers yi dañu bëgg ngeen wax ñu yéen. Euh, sa bag ñaata at la am. seen bag ñaata at la am. yow sa bag ñaata la am. ñaata at la am. <laughs> est-ce dañu romb rek. Euh, il a quel âge son bac. mon bac. très sérieusement. Oh yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ton bac doit te, pas me marier. mais j'ai eu le très tôt. très tôt très tôt même. waaw bébé am bac 16 ans laa amoon. bébé bac nga woon. bébé bac waaw oh la la la la la. bébé bac la am na bagu ren bi moom kii saan dama ko cee mujj yërëm. élèves yaa ngi ñaxtu rek. parce que daf ñu wax lan moo yomboon ci bac bi. ak lu tax bag bi am résultat catastrophique parce que il paraît que les résultats aussi. dafa catastrophique ñu seetaan moom lu mu wax te ñëwaat. bag bi est-ce que liir nga sujet yi bag bi barki alxuraan comme que am na benn booy nu mu ko waxee maanaam bag bi lan moo si yomb en-tête bi fi ngay remplir sa tur loolu lekk yomb si bag bi lépp a saf barki alxuraan xoo ñun man ñun élève el yi ñun bu ñu joxee mat man pour man sax matu es lañ ñu jox barke alxuraan est-ce que li. billaahi bëñ ah! bi juree jàmm code bac bi bett rek. mu ne moom mu ne lan moo gënoon yomb ci bac bi. maanaam enquête bi mooy fi ngay remplir sa tur euh, tur bi sant bi numéro de table bi nee na loolu dong moo yomb ci bag bi li des lépp a métti. waaw loolu nag xam nga li message la aussi pour. Euh, euh, après daal pour mhm. année prochaine. gars yi kon année prochaine nañ ko seral. waaw bu bu tur yi bu remplier tur yi yombee sax au moins ngeen tegal leen ci tuuti benn sujet. ah bu xaw a yomb sax bu xaw kii mais bu dee remplir tour kese yomb nag vraiment kon ku ne mën na def. loolu ma Adja doon wax moom gisuma ko sax Adja digital animu da doon def direct de. da doon def direct moom waa yenn saa yi nag day ñëw ndeysaan di la wax naan non moom bagam nii def na nii dugg na fii génn na fii. mais bon nee na moom comme ak mairie paay bu ñu leen nettali seen bag yi. nit ñun ba ñuy def bag. c'est ça ñun de da ngay yaakaar ne classe bi guerre pour yow classe bi yow dañu doon bind pistolet yi di métérailleuses yi di tàq Adja nee na moom par exemple bi mu doon def bac dafa tasanteeg ak benn euh, jury bu mhm. xaw a immature xam naa day mel ni kii rek mm, ñu seetaan ko te ñëwaat le meilleur jury 922 <laughs> Oumou Mbengue passage lycée de Bargny bu fi dee rek yëkkat leen waay 92 825 Ndeye Seynabou Ndiaye passage lycée de Bargny <laughs> 92 996 Libaas Ba passable. Eh, ñëw ñëw nii la. Libaas Ba moo ma rey suñu ma nekkoon jury daan na numéro 299 Mairie Bey Diouf daal di immatriculé. mi ngi noonu donc lii tamit dafa daal di bokk ci perle du Baguino lii moom nag franchement. non moom leen dong ñu dese ci àdduna président bu immature. lépp am nañ ko ci immature loolu kese ñu des am nañ waykat yu immature. bugguma boobu am nañ joueur yu immature. am nañ professeur yu immature am nañ animateur yu immature ak ay caat yu immature. président bu immature lañ bëgg en 2024. incha allahu rabbi du ma ko nangu du ma ko kon dañuy bugg génnee. ñu immature yi loolu faaw faaw mu am loolu faaw mu am. am na tamit ku amul ba ku immature. def vocalam ndeysaan te man loolu sax bëgguma ko woon teg mais yaa ma forcé lii mënut a ñàkk ñu teg ko parce que dañoo war a sensibiliser nit ñi. sur lan nit kiy def bàkkam. Mm. amul waaw. woo ko ci njëkk ak teraanga nga encouragé ko mais jël photo am publier ko. ba mm. pare def ci ay jooy di ci bind encouragement ak félicitation yaa ngi weer nit ki. am na ñoo xam ni xamul ni ñu ni moom amul bac ku am la ñuy posté félicité ko ku amul nga woo ko wala nga message ko ci suuf. ci xoolal nu mu xaawee sutura soxna si. ñu seetaan soxna si di ko xaaju fu ne. <laughs> ñu seetaan ko ñëwaat. aw ma ba ngeen jël ma di ma posté nii mel ma damaa de ak seeni jooy lan la aw ba kay aw ma mais bu leen ma dugal di ma statut naan ay décourage ngeen bëgg ñëpp xamal ma aw kay jeex na encouragé la ma lan moo si jar statut di nil sama photo bi na statut. Apulaay yee ko neex ma ngay ree rek. non mais wax na dëgg nag. li dafa métti mais lu tax ñu koy posté. amoo man moom laa àndal la. Ah. amoo bak ñu posté la kii. kii posté dama lay damay ñëw xuloo bu ko leneen daloon wala mu ñàkk leneen tamit nii ngeen koy posté tamit nan ko amoo lii. wala amoo lee vraiment ah non leen loolu. non c'est c'est immature. ñàkk na ñàkk na. moom tamit ñu ngi koy encouragé bu baax a baax di ko encouragé ci kanam ci ci télévision Futur Média télévision bi nga xamante ne àdduna ko suivre ñu ngi koy encouragé devant tous les Sénégalais di la wax ni incha allah rabin peut-être année prochaine la bonne góorgóorlu dina baax. wax nga ko télévision Futur Média ñëpp koy suivre si àdduna bi. moo mhm. tax tamit bu ñu gisee message bi nga xamante ne depuis démb. Mhm. Euh, mi ngi jàll si réseaux sociaux yi. Mhm. ñu ne tamit dañ koy daal di indi fii si suñu émission bi ndax. Euh, moom mooy heure bu baax bi. te ñëpp dañuy toog di ko seetaan. Facebook di Twitter am na benn message boo xamante ne nii mi ngi circuler mhm. donc ki nga xamante ne moom moo di Mame Seynabou Sarr numéro de table 22 68 17 moom dañ koy yëgal ne que elle est autorisée au euh, deuxième tour donc euh, ci euh, message bi la ñu daal di tombé noog mhm. xëy na moom mënuñu fexe ba jot ko mhm. donc looloo tax ñu ne daal nañ ko par la magie des réseaux sociaux te mhm. comme ñun li xew ci biir internet bi foofu lañ foofu la ñu nekk mhm. il faut aussi ñu indi ko fii su ko defee moom mi di maam euh, Seynabou Sarr mu daal di xam ne ne elle est admise au deuxième tour euh, su ko defee mu daal di dem euh, passé deuxième touram def sa bac ba admis <coughs> def sa bac ba admis mm. ñu di la woo mënuñu laa jot te ma bëgg apulaay nga indi ma en direct ma woote ko woote bi doon benn maam Seynabou Sarr <laughs> numéro 22 68 17 mi nga au second tour ñu ngi lay message jotoo ko. du numéro numéro table bi. numéro table bi. waaw 22 68 17. maam Seynabou Sarr admis nga second tour demal nga def sa second tour parce que da ngaa ci sa bac bi. ngir yàlla war a suuli xaw ma sa téléphone dafa fay xaw ma dañ koo sàcc xaw ma dañ koo dóor mais Télé ñëpp koy seetaan maam Seynabou Sarr demal nga defi sa deuxième tour. incha allah bugguma coow ñu ñaanal ko mu am ko. incha allahu rabbi. waaw xam naa ne sa moo gën a siiw ci deuxième tour àdduna <laughs> ñëpp dina wër pour nga defi ko. ah man di tam kii tamit félicitations à elle. ay suñu Queen Rila parce que ñu bëri dañ ne woon dafa topp TikTok bi. xam nga nag xam nga xale yi dañoo mën a tontu. Sénégal ah xale yi léegi dañuy tontu. waaye na mu tontoon neex na ma ak caayam ak semisam. instant bi daal moom da doon def bac. Mhm. day yëgal ne que ne malgré TikTok yi mu doon def. Mhm. daal dina am bac ñi seetaan ko ñëwaat mu ngay jubilé. <laughs> nekk na si TikTok bi. <laughs> mi ngi woon si TikTok bi mhm. di ñu béggal di bégal nit ñi waaye malgré saa xam na ne bu jàng jotee dafa war a jot jàng waayo Pape. Pape moom balam ñaataat la am. <laughs> ñaataat la am ah. sa bag ñaataat la <laughs> laaj. sama bag est-ce que amul 30 ans sama bag yàgg na de. wallaay sama bag noir blanc la. sa bag instant war na am jabar ba am doom. war na am. jabar ba am doom. Euh, sama bag am na ay sët. <laughs> normalement. <laughs> normalement <laughs> sama bag am na ay sët. macha allah ki ñu doon wax noonu ci TikTok bi mooy Queen Rila. mooy ki nga gis noonu moom mooy ki doon def euh, euh, challenge Viviane bi rek. ndax may rey ba ma dee. voilà mi ngi ni muy ay tànkam. waaw kay ma nga noonu borom fenêtre ba. <laughs> donc moom am na baka am na bak malgré le fait que nit ñi dañ ko doon wax toppal TikTok bi. ba oh, ñaata sa na bàyyi nit yi na bàyyi nit yi. non il nga leen di tontu léeg-léeg ay pause la rek pause <laughs> récréation de temps en temps. tu révises soo jàngee ba sonn rek tu prends ta petite récréation quoi. c'est ça ñu def une deux vidéo yàqul dara. waaw yàqul dara. yàqul dara dañuy tëj wala dañuy continuer. kañ ngeen di tëj. ñun. Hmm. waroon nañ continuer tuuti de waaye dafa am benn vidéo bu mu la bëggoon woon rek. wan ma ma xool. vidéo mariage buy buzz. xam nga taay gars yi dañuy jël. Mhm. seen dañuy dem seen mariage. waaw ah. fecc ko ba mu jeex. oh. jëlal kii. ngi bës instant yi ndaxte jigéen ñi nee nañu képp ku ko def lii. Abdoulaye jour réception am ñi la doon feccee. nga ni ma ñi la doon feccee de leer laa la wax. mbaa yéen ni waajal sama réception man. Ah, sa réception yow da ngay waaj a takk. bu leen énervé de ndax man. information de première taille nee day waaj a takk. kii lu mu information de taille. waaw kii lu mu fecc dinaa fecc double. ah en tout cas jigéen ñi nee nañ. bu dee lii fecc ba añ ci kaw baasam. aju fecc ba añ ci kaw baas gaa naan tey leen marié moom ci kaw baas bi le marié est demandé. ak lan ngeen di tegaat. daa mel ni bon euh, bëggoon naa la may challenge bi rek après ñu tëj ba suba rek. li si des li moom ah xool. waaw ñu teg challenge du moment rek kon ay ca ba suba. ak fi réew mi toll ay góor yu forox góor yu réew ay góor yu soof ay góor yu dof ay góor yu xeeñ teg si bëri problème néega ak fi réew mi toll <laughs> nan ngeen nobbeeku la nawul ak fi réew mi toll nan ngay toobee ku la topp nan ngay noobee ku la noobu feneen ak fi ak fi réew mi toll ay góor yu frox ngay nopp ay ay góor yu réew ay góor yu soof ay góor yu dof ay góor yu xëy mi ngi noonu li may ak fi réew mi toll eh, eh, eh. vacances. Ah instant bi nii les amourettes de vacances. ah affaire yi daal di jug nit ñi jël ko rek daal di ko def challenge. donc ambiance de jour de fête. ak réew mi toll nan ngay nobee góor gu la ñu wax ci kii bi. Euh, tey ngeen tëj balaa tos di wax lu ëpp. waaw defe naa loolu lay balaa maa duggaat ci euh, xale bi day débordé nii nii. waaw chers téléspectateurs xew ci biir internet bi nous vous disons à demain cordialement. merci Pape nous te rendons l'antenne. merci à vous. merci à vous vous.